jiiteeg Oustaz Niang Mbaye ci min axlaaqi salaf aw min axbaari salaf wa axlaaqihim am xamle salafu saalih ak seeni jikko kon dañ ko jox mubashara mu dugg ci li nga xam ne mooy moo doon moom itam ñu noté rek suñu paree ñu xam ne ne kenn ku nekk lañ koy laaj ak lañ koy yokkal bismillah tabaraka taala waaw ñu ngi nii toll bismillah tabaraka taala ci midi quarante maanaam une heure moins vingt la ñuy léegi dañ koy may une heure de temps muy une heure quarante incha allah léegi su ko defee mu nekk waxtu moom itam la ko defee incha allah.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
حافظ ما فيها إلى كانت الوفاة waaw لأن بدأوا جدي جلد الله
non bii moom mën nañu dem ba une heure quarante rek ñu dem julli مم لا بغلا كون لون بعد إن شاء الله waaw ana ana Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim
كون يبقى waati waati rek waati إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu mbokk yi ci nuyoob lislaam di ñaan borom bi subhanahu wa taala jotaay bii ñu am mu booleel ñu ko ci jotaay yi nga xam ni daf nuy jariñ ci keroog bu ñu dajeek moom ci bis penc ngir ñu bañ a ubbee ubbee bu gudd ndax tomb bi ñu ñu sant ñu fàttalante ci waxtu wiñ ko jox laa chaque ni tuut na ci kon ne mu tuutee ci mawdu yu am solo yi jiitu ñu ànd xam rek ñun ñëpp ni comme ni ko mbokk mi waxee fàttali bi mu ngi jëm ci lenn ci nettali ak i jikko ak i melokaan ak i jëflante yoo xam ni amoon na ci diggante mag ñooñu nga xam ne ñoom la ñuy askane magi lislaam muy salafu saalih nga xam ne ñoom la ñu suñu borom digal ñu roy leen te ka jiitu ci ñoom du yonent bi ak ay saxaabam ridwanullahi alayhim ajmain jàpp naa ne lu jaadu la bayn al xiin wal axar ñu di ko fàttali ak di ko fàttalante waat jubluwaay bi mooy doomu aadama dafa gaaw a fàtte dafa gaaw a juum timit su ko defee bu nu borom bi subhanahu wa taala defalee tawfiq ba ñuy daje léeg-léeg di fàttalante fàttalante yooyu amaan na bu nit ki jëriñoowul lépp dana am ay mbir yoo xam ne bu jógee dana ko mën a jëfe nu ànd yëg ni lii nuy fàttali ki koy fàttali ak ñi mu koy fàttali ñoo ci bokk yoon maanaam bu dee jëfe la li ma jàpp mooy ñëpp ca gàttanlu waaye bu dee aajowoo ñëpp ko aajowoo wala sax kii wax gën ko aajowoo ñi mu koy waxal ñooñu kat di gëstu léeg-léeg seen dund fi kulli jawaanibil xayaat lu jaadu la ndax borom bi moo leen seedeel ci téeréem bu tedd bi ay seede yu bari yuy wane ak mbaax ak jubal jubantiku bokk na ca seede yooyu suñu borom ni aw góor leen ak aw jigéen yoo xam ni seen ragal yàlla yegg na ci liggéey ak àddina wala commerce bu dox wala yu demee noonu bu dox seen diggante tudd yàlla ak di ko fàttaliku la ko waral mooy dañoo tiitoon ni bis dina ñëw ñu dajeeg seen boroom te su boobaa dana leen àtt ci liñ leen doon def moo tax kat nag comme ni ñu koy waxee ci jamono bu nekk taarix moom dafa yàgg a seede ni àddina bi li muy yàgg yàgg mësagul a dajeeg am mbooloo moo xam ni ci ngëm yàlla ci ragal yàlla ci fegu ci ñoŋe ci jaamu yàlla ci njàmbaarte ci sellal ci yéene sa mbokkum jullit li nga yéene sa bopp ci dégg diine ak am ak dal ci masalay diine yi taarix moom seede na ni ba jamono tàmbalee ba tey gisagul ñu ni mel ñu dul saxaaba ya ba yonent yàlla yi jàllee la waral loolu moom mooy ñoom kat dafa mel ni dañ leen a sàkkoon rek ngir jaamu yàlla subhanahu wa taala te it bu nu seetloo bokk na ci sabab yi tax ñu xam ni fàttali lu mel ni am na solo mooy ñoom yàlla daf leen a defoon tawfiq ñoo gënoon a dégg diine yàlla ci te dañoo jànge woon ci jàngalekat bi nga xam ni sunu borom moo ko yabaloon muy muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te it bu lislaam nekkoon am taax dañuy wax ni ñoom ñooy móol yi njëkk a taxaw ku ñëw taxaw ci seen kanam bokk na ci solo sax ñu xam ni ñoom këpp tey bu ñu demee ba jamono jaxasoo comme ni ko mbokk mi doon waxee jazakallahu xayran bidaa wu wuññi ay béjjénam ba tiim lépp luy diine ki bëgg mucc dafay delluwaat ca source ya ca tànkukaay ba nga xamante ni ñoom kat ñoom ñoo nekkoon alal hajil mustaqim comme ni ko Abdullah ibn Mas'ud doon waxee te comme ni ma koy waxee ci dars yi xayat saxaaba yi maam doomu aadama dafa bokk ci melokaan wi ko suñu borom bindee mooy bu dee ku saay-saay la dafay aajowoo ñu koy nettali xisasi saay-saay ya loolu da koy bégal da koy da koy encouragé ci li mu nekk waaye bu dee ku baax la dafay soxla ñu nettali ko misaalam gaa yu baax yi ndax loolu daf koy chargé waat bu doon batterie bu faible la dañ koy chargé waat pour mu jóg rawatina nag yonent yàlla yi ak ñu topp ci seen ginnaaw moo tax suñu borom bi wax ci surtu yusuf laqad kaana fi qasasihim abratun li ulil albab ñooñu yonent yàlla yaag taabi'un yaag saalixuun yaag siddiquun yaag suhadaa ya toog di waxtaanee seeni mbir képp nag ak fàttali kooku waaru nekk la ci ñeel borom xel yi ñu ànd xam ni tamit àddina sax nag yàlla dafa def lu yàgg rek soppeeku lu yàgg rek suñu borom bu ko seetaanee mu soppeeku waaye alxuraan ak sunna moom suñu borom da koo defal ak garanti goo xam ni lu nit ne soppeeku soppeeku am na ñu dul soppeeku moom gis ngeen ko ca la tazalu taifata min ummati mansurina zahirina ala alxaq la yadurruhum man xaalafa wala man xadalahum xatta yatiya amrullahi wa hum ala dalik jamono dana dem ba nit ñi danañ soppeeku danañ jaxasoo waaye du ñàkk kuréel wala mbooloo moo xam ne ñoom ca lu gaaye bàyyee sax baax yi sax wala ca lañ sax xas ak aji xas du leen tax a tourné yedd ak aji yedd du leen tax a dëpp ñoom ña nga xaar mbiram suñu borom war a dee yem kon loolu moo lay wax ni ak garanti am na ci sunu borom subhanahu wa taala gum ko garanti tey alhamdulilah mbokk yi bu dee sunna alhamdulilah ñi ciy askanoo bari nañ torop nag ñi ciy askanoo bari nañ lool wax dëgg yàlla léegi tumuraankeetul waaye jafe-jafe bi ñu am ñun ñëpp di ko yëg mooy ak gàttal lu ci jaamu yàlla yi ak gàttal lu ci jëflante yi ak gàttal lu ci rafet jikko yi loolu moom defe naa feebar la boo xam ni ñun ñëpp yëgandoo nañ ko man sax kenn ci suñuy borom yi xam-xam day wax ni farlu gi nu def bay moytu bokkaale satu pas-pas day genn wàll ga buñ ko defoon ci mbirum jëflanteeg jikko rek mu baax te loolu defe naa ñun ñëpp yëg nañu alhamdulilah da ngay koo xam ne nga koo seedeel ni mu waxeet la insha allah bu faatu woon tey di nga ko seedeel ni kii day musuma koo xamal luy jege ak bokkaale yàlla te xam ngeen ni loolu moom mooy garanti bi gën a wóor nit ki dajeek ak borom waaye nag buñ génnee foofu nga dugg ci buntu jikko melokaan ak jëflante rek daanaka daal dootoo amati la neex kon mbokk yi farlu gi mu def ba boo faatu woon tey ñi ngay dundal man laa garantil ni yow kat waxet nga kaamil wax dëgg yàlla waroon ngaa góorgóorlu ba ba mun farlu mu doonoon nga def ko ci jëflante jikko ak melokaan genn wàll nga sax nga def ko ci kon askanoo gi nuy askanoo ci salafu saalix kat dinaa koy wax sama bopp di ko wax ñëpp dëgg dëgg nag bu ñu waxee te yàlla tax mooy ñi ngi leen di tooñ ndax niñ leen di tooñee mooy ñi ngi leen di publicité nun menut ndax nun kat dañuy wax ne ñun salafu saalix la ñuy askanoo ñun kat ñooy ahlu sunnati wal jamaa ñun kat ñooy góorgóorlu comme ni ko jullit bu nekk di bëgg a melee waaye li ñuy wan nit ñi ni loolu la kat boo toppee mbir ya ba ca biir ñoom merul woon noonu kon yaa ngi wan nit ñi lu bokkut ak ñoom nañ meloon te daan nii lañ meloon kon yaa ngi leen di xaslu te yëgoo leen yëgoo ndax kat nit ñi bi ngeen waxee ni nii la gaaya mel ba ñoom ñu jàpp ni gaaya nii lañ mel ñu wëlbati ko gis ni nga mel ñaaw su boobaa kat dañuy bëgg a ñaawal ñeneen su boobaa yaa ngi tooñ kon looloo tax melokaan ya nga xam ni moom la ñu njëkk ña yoroon comme ni ko seen benn magum daara di waxee ñoom daawuñ aaja woo wax yenn yi waaye sañ nañoo wax hey kaay leen yéen ñi ñuy woo ngeen mel ni ñun waaye jàpp naa ne loolu ñun ñii muy man muy yéen kenn ñi mel ko wax kuy daaw di wax nit ñi kaay leen mel ni man loolu moom ñun defe naa moom ke- kenn sa fukki xel sa xalaat ndax nan nga mel bay woon nit ñi nan kaay leen mel ni man waaye ñoom kat ñoom daanañ wax ni kaay leen mel ni ñun lu tax parce que dañoo meloon noo xam ni wax dëgg yàlla sax nañoo woon nit ñi kaay leen mel ni ñoom kon incha allah tënk nañ ay tomb rek donte waxtu bi du ko mate waaye fa mën a yem rek ñu yem fa di ñaan borom bi subhanahu wa taala بأسماء الحسنى وصفاته العلى الحي القيوم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام mu defal ñu tawfiq ba lu mu dégg lu mu gàtt gàtt rek ñun ñëpp incha allah fii wax ak ñi koy déglu man ko jëriñoo innahu qadirun ala dalik tomb bi ci njëkk mooy salafu saalix wal ixlaasu fi jamii al amal maa al xawfi min arriya salafu saalix nan lan meloon ñoom ci sellal seeni jaamu yàlla yépp ak di tiit li ñuy tuddee njistal tàbbi ci seeni jëf salafu saalix nan lan meloon ci sellal seeni jëf yépp ak nan lan meloon ci di tiit li ñuy tuddee ngistal tàbbi ci seen biir ay jaamu yàlla ànd dañ yëg ni mbokk yi sellal day mooy aslu diin ndax wa maa umiru illa li yaabudu llaha muxlisina lahu diin faabudi llaha muxlisan lahu diin qul inni umirtu an aabudu llaha muxlisan lahu diin ila axiri l aya sellal de la yàlla def mu nekk cosaanal diine ci moo tax imam al-allaama ibn al-qayyim saaxib al-kutub al-qayyima day wax ni man araada uluwa binaa'i fa alayhi bi tawfiqi asaasi ku bëgg sab tabax ñoqali ca kaw te dëgër nga mën caa dëkki ab te du bàbb mu ni fexeel ba fondement ba na dëgër wa ixkaamihi it na nga ko tabax tabax bu baax wa shiddati al-i'tinaa'i bihi sonnal ca potoye ba mu dëgër fa inna uluwa albinaai ala qadri tawfiqi al asas taa xam kaw mu yëg ca kaw wóor ban mën caa dëkk mi ngi tënku ci dëgër ak fondement ba côté loolu mooy lan mooy sa jaamu yàlla yi sa koor geeg sa azaka jeeg sa sarxe beeg sa njàng alquran beeg sa njàngale alquran beeg ila axiri ma tadkur yooyu yëpp boo sonn ca baax ba muy sellal nga kat daanaka yaa ngi bay cib tefes wala nga bay cib jaaj da nga yàq sam liggéey sam xëy nga yàq yàq sam ngoon ànd ak loolu ñu xam ni ngistal kat nag mooy noon ak sellal ndax moom waxuma la day fay ay day fay sax ngëm yàlla faf moo tax salafu saalix boo xoolee seen dund ak a ñoo sonnoon ci jéem seeni mbir mu sell waxuma seeni jëf na sell de waaye seeni mbir laa wax te mbir bu ma ko waxee jëf ca la wax ca la jëflante ca la lépp ca la kenn ku ca nekk nag xam nga yow sa bopp balil insaanu ala nafsihi basira coono lu mu bari bari bari buñ naan diw kay moom macha allah diw nangam yow doo doo doo ko li may faral di wax ni gis nga nit ñi yi ñuy wax bul ci baadewu di ko déglu ndax yàlla bu lay aatale nit ñi lay déglu pour aate la déedéet nit ñi biñ naan diw baax na diw nangam diw macha allah borom xam-xam la wala diw dafa nangam yooyu bu mu la trompé de parce que yàlla du déglu wax yooyu pour man laa aate déedéet. yàlla li mu xam ci yow la lay àtte te nit ñi la ñuy foogal la ñuy njort la ñuy wax kon ki sellal ak ki sellalu kay góorgóorlu ko góorgóorlu dafut xam na boppam bari insaan ala nafsihi basira kon salafu saalix boo jëloon seen dund mbokk yi ci bunt bii di sellal këpp ci tënk sonnoon nañ ca lool moo tax imaamu Shaabi toxal nañ jëlee ci moom mu ni te imaamu Shaabi ci bokk na ci xurnu salaatal mufaddala bi mbokk mi doon wax sànq nee na bokkoon na ci yar biñ xamee woon ñu njëkk ñi ñu doon sàkku xam-xam démb mooy suñu commencé xam rek dañuy tàmbalee jëfe xam-xam ak jëf ñu doon ànd waaye xam-xam bu ànd ak jëf mu ni am du xam-xam tuddul xam-xam moo tax imam Awzaa benn bis benn waaye ne ko yow borom xam-xam mu ne ko déedéet du ma ko am xam-xam mu ne ko lu tax mu ne ko borom xam-xam mooy kiy jëfe li muy xam mu ni saa buñ commencé xam dañuy tàmbalee jëfe mu ni suñ tàmbalee jëfe commencé ñàkk jot suñ commencé ñàkk jot tàmbalee raar nit ñi bu ñu raaree nit ñi commencé nëbbatu bu ñu tàmbalee nëbbatu commencé daw bu ñu dawee nit ñi wër leen bu ñu leen wëree duñ leen mën a gis la leen yóbbee loolu lépp mooy daw fitna ak bëgg seeni jëf di sell Zubayr ibn al-Awwam ca waxam jooju ñu xam siira dëgg xam nañ ne du moom rek moo ko doon wax ndax Zubayr da ko doon wax Abu Darda da ko doon wax ñeneen ñeneen ci saxaaba dañ ko doon wax mooy kenn ku ca nekk na góor-góorlu ay jaamu yàlla mu am yum defar ba denc ko nga xam ni soxnaam mi ko gën a jege du ko xam xam nga nit ki bu demee di góorgóorlu ci di nëbbatu ci ngir sellal bay nëbb soxnaam bi muy bokkal benn mbàjj kon mbir ma sell ga ëpp na moo tax mu ne war ngaa fexe ba am jalab jëf yoo xam ni sa soxna mi ngay bokkal menn mbalaan sax da nga ko koy nëbb kon nit ñi moom taxul di wax loolu moom ñu bari ci salaf doon nañ ko wax moo tax danaa wax ni dëgg-dëgg ñooñu wax kàddu yooyu de wax nañ lu wér ndax mbokk yi nun day muy man ak sama maas dañoo sawar lool ci nëbb seeni ayib ah di bëgg lool seeni mbaax mbaax di feeñ dañoo sawar lool ci nëbb seeni ayib sawar lool ci feeñal seeni mbaax mbaax ñu njëkk ña moom seeni ayib lañ bëggoona muy feeñ ndax ñu mën koo masque nit ñi pour seeni mbaax mbaax mën a jàll kon ñun ni ñu sawaree ci nëbb suñuy ayib ñoom loolu lañ sawaree woon ci nëbb seeni jaamu yàlla ñun liñ sawaree ci feeñal suñuy mbaax mbaax ñoom loolu lañ sawaree woon ci nëbb seeni mbaax mbaax subhaana rabbina ala bokk na ca firnde yi mooy kenn nga cay waxal lu baax lu mu doon nëbb rek mu mer ba bët yi xonq nga xam ni kii li nga ko wax neexul ñun nag kenn nga ciy waxal ak mbaax mbaax nga gis albishara wal farax wal xibta ci kanamam ndax daa kontaan lu baax li nga ko tuddal kon ñoom de buñ musaana wéet la ñuy sawar buñ gisee nit ñi tayal ñun nag buñ gisee nit ñi la ñuy sawar buñ wéetee tayal salamatu bnu dinar nee na uktum min xasanatika kama taktum min sayiatika fexeel ba di nëbb say jaamu yàlla yu baax comme ni ngay nëbbee say ñaawteef Hamad ibn Zayd nee na bokk na ci li ko yéemoon mooy moom da doon gis ayub asaxtiyaan yi ci aimma yu mag yàlla bokk ina benn bis damay ànd ak moom ñu war a jaar fii mu jàdd fëf ma téye ci mbir mi ne ko waaw foo jëm mu ne ko damay jaar fii barab sàngam laa jëm mu ne ko yow fii ngay jaar dafa sori fii moo gën a jege mu ne du ma faale mu continuer mu ni ma gis ko mu jaar ci ay ruq-ruqaan yoo xam ne ni mu lëndëmee dama naan fii nu ko doomu aadama mën a xamee ba di fi jaar bu ma ko laajee lu tax mu ne damay jaar fii ngir nit ñi bañ maa gis ndax wax yi ñuy wax laa bëggul a dégg mooy bu doon sama classe gi boo rombee ni ah oustaz na nga def macha allah yow kay sa waxtaan wi yow sa nangam yooyu ngay bëgg di dégg affaire bi di neex ci yow ah yow diw eh yow kay macha allah yéen kay seen nangam ji nga loolu nga bëgg nit ñi di ko wax ah yow kay jàmbaar nga yow de gis naa li nga li nga defoon loolu ngay bëgg nit ñi di ko wax wa illaa nga romb nit ñi ñu bàyyi leen doon def ñoom nuyu la ak ñaari loxo genre boobu nga xam ne ñun ñii ñëpp moom lañ bëgg mu ni moom loolu la doon daw mu ne saa bu rëccalee ba nit def ko ko nag day talal ay loxo di asama ni allahumma innaka taalamu anni la uhibbu hada yow yàlla yaaw xam nga xel ni lii ñu may defal nii man bëgguma ko kaanu muxlisin wa kaanu sadiqin doon nañ seelal waaye ñu dëggu woon na noonu nag boo xoolee safaan bi la kenn ku nekk xam na boppam maa ci jiitu yaakaar naa ñu ngi fàttaliku nit yi abi zura muy yaxya ibni abi amr ci qissa daxaat ibni qays boobu nga xam ni ca jamonoy salaf yàgg ja te lii may nit li ko dellu ci téere siyar di nga ko ci fekk ci seen jamono dañoo amoon bekkoor bu metti ñu aajowoo taw biñ aajowoo taw daxaat ibni qays bañ dikkee fa ñuy ñaanee baaw naan mu ni ayna Yazid ibn al Aswad Yazid ibn al Aswad fu nekk ci mbooloo mi fekk Yazid mi ngi ci mbooloo mi waaye ñoom pour wane dañ doon nëbbatu xam na ni daf moo bëgg a feeñal mu daal di jël kaala gi muur ko ci bopp bi daal di sëkk ñoom it xamante woon na bi mu ne ana Yazid kenn wuyu wut xelam daj ni Yazid jaamu yàlla gu mag yi duñ ko def te du ñëw mu xam ne mi ngi ci mbooloo mi day làqatu mu ne ko su fekkee mi ngi dégg sama baat na xam ne man kilifaam maa ko woo te wax na dëgg moo nekkoon gouverneur foofu di kilifa mu xam ni kat nag sañatu la bañ a wuyu mu daal di siggi muuraay bi daal di wuyu bi mu wuyoo mu ne ko yëkkatil say loxo nga ñaanal ñu yàlla mu tawal Yazid daal di yëkkati ay loxoom daal di wax wax ju am solo mu ni allahumma inna ibadaka haulaai istashfau bi ilayka yow sunu borom sa jaam yi de ñi ngi nii di tinu waaye bëgg koo jaara ci man ngir ñee danoo foog ci man lu baax doonte amul man nag maa ngi yëkkati samay loxo di la ñaan nga tawal jaam yi li muy wàcc ay loxoom rek asamaan si commencé dajalew xiin dajalew xiin taw taw boo xam ni dëkk bi dafa taa ndax ndox mu bari bi mu tawee ba noppi de xam nga nit ñi tamit wax dëgg yàlla jamono ji man gëm naa ni am na ñu bëgg a sellal waaye ñun ñii ñoo bàyyiwul suñu morom ñu sellal ndax nit ki bëgg a sellal yami bañ ak yami daw da nga ko waroon di bañ leen ndax mbir bu amee nga yëg ni diw mi ko def wala mi ko wax am na njariñ bul paase yaa xëy jazakumullahu xeer yàlla yàlla fay nga yem foofu doy na ñaan doy na waaye déedéet hé yow kay sa jëfi démb ji yow kay sa nangam doomu aadama ñëpp yem muy man muy keneen nit dafa faible yooyu boo koy faral di wax mu di ko dégg amaan na seytaan def porom dollu ca loola pour yàqal kii yow kay eh yow kay budul woon ak yow keroog yow budul woon ak nangam nangam ji gis nga yooyu nit ñi nañ ko war a bàyyi te it nag yow nga am fulla ju doy ni say jaamu yàlla buy ma bul may nit ñi dugg ci ndax sa compte banque dugaloo ci kenn te bii mooy compte banque bi gën a wóor muy sa tiyaab del freiné nit ñi buñ naree ëppal waaye nit ñi it nañu yërëm ki baax la di bëgg a làq bañ koo yàqle ah nit ñi gis nga leen ñu xëy rek commencé xëy ay suñu mën di démb yéemu naa ngeen ngeen waaye si moom dafa yëkkati loxo bi rek affaire bi taw gis ngeen dëkk moom sax dafa taa affaire bi nag nekk waxtaanu marché yi hôpital yi néeg yi jëkkër ak jabar ila axiri ma tas ko Yazid jot ci wax ji affaire bi naqari ko mu julli ñaar rakk yëkkati ñaari loxo mu ne yàlla xam nga ni siiw naa te bëgg maa siiw dee ma gënal lu ma mën a am bis bi mu ko waxee bala muy del si mu faatu maanaam yooyu boo ko boo ko xoolee ba ca biir da ngay xam ni ñoom ñi ñu se amoon sincérité ci liñ doon def la dañoo gëmoon liñ doon def yàlla lii man bëgguma ko billahi al azim bu doon ñu na bu doon ñu na même boo waxut la nga gën a bëgg mooy affaire bi siiw parce que après da lay yox daraja nit ñi gën laa fonk nit te nit ki loolu la bëgg ndax seytaane tamit daa bokk ci comme ni ko mbokk mi waxee téere bu am solo bi mu tudd sànq di téere boo xam dinaa ci delloo sama bopp lu bari ak mbokk yi muy talbisu iblis daanaka daal médecin la buy consulter nit ki ci fu ko seytaane mën a jaare téere la boo xam ni boo dikkoon tey nga taxaw ni dama bëgg ku ma consulter ci fu ma seytaanee jaar danaan la koo doon yow nga ne man jàngalekatu alxuraan la am na bunt boo xamante ni fan la seytaanee jaare jàngalekatu alxuraan ngay ubbi nga ñëw mu ne la yow looy looy loo lan nga nga ne man borom alal laa mu ñëw ci borom alal nga ñëw nga fekk nga jaamukatu yàlla am na bunt boo xam da ko ubbi pour seytaane fi muy jaare jaamukatu yàlla yi nga xam ne noo mën a mel rek mu consulté la kon loolu la daal di def defe naa qissa Muhammad ibn Munkar dégg nañ ko lu bari donte baamtu ko du aay ngir ñu ko mosul dégg ngir bañ waxtu mu gàtt rek gis ngeen Muhammad ibn Munkar min kibaari aimati salaf ah benn bis dafa dugg ci jàkka ji fekk nit ñi di ñaan taw tawut mu gis benn waay boo xam dafa ñëw rek julli ñaar rakka ba noppi ci jàkka ji yëkkati ay loxoom. mu ne yow sunu borom madina de fi mu nekk nii wax dëgg yàlla bekkoon na muy dëkkab sa yonent bi te fi mu ne nit ñaa ngi ñaan taw sunu borom te ngaa sarax nit ñi nga tawal leen nee na waa ji bi muy wàccee loxo bi rek maa ngi seen asamaan saa ngi dënnu di taw nee na ma gaawal sama julli gi rek pour gaaw jub dab dab waa ji xool waaw kii moom mooy kat kii ak yaram yu woyat yii waa dëkk bi yëpp a ngi ñaan yow nga ñëw ñaan rek mu taw kum door nee na ma génn di ko topp mu rëcc ma xaw ma fu mu jaar ndax taw bi bala maay woo ko su bay jàll fekk ma am romb la ma ne baax dinaa ko jaar nee na ca ëllëg sa ma seen ko ah kii la xaaral ma xaar ko ma pare mu ne ma xaar ko ci buntu jàkka ji nee na ba mu génnee ma topp ko di ko topp di ko topp di ko topp ba mu dugg ci benn kër ma ne ah baax na ba suba fekk heure guerre ca suba sa nee na mu daal di koy topp ba dugg ci biir kër gi ne salaamaaleykum wa rahmatullah daal di bëgg fekk waa ji uude la xoolal uude niñ koy xeebee ndekete mbir mi nekkut bi bi bi zawahir yin nit ñi yi ñu natt ci kaw di wa am xam-xam di wa di wa rëyu mbubb di wa nangam di la nit ñi jiital yooyu am solo li am solo indallahi la nekk nee na mu duggee mu daal ni ko ah uude bi jug ni ko ah Mouhamed ibn Munkadir yow borom xam-xam bu doy ni yow boo ma soxlaa doo ma wóolu ma ñëw ndax ñoom it dañoo armal seen i borom xam-xam loo soxla aw daal la nga soxla wala xufu nga soxla pour ma defaral la ko mu ne ko déedéet loolu taxumaa jóg de mu ne ko lu xew mu ne ko man kay damaa jaaxle yow sa ñaanu biggi bi mu ne sa ñaanu biggi balaa yegg rek waa ji changé kanam gi mu ne ko yow yaa ma bett Mouhamed ibn Munkadir borom xam-xam bu doy ni yow yow ndekk affaire ñàkk fayda yii nit ñi def yow ndekk ci nga bokk man foog moo ne yow ñàkk fayda yi di nga ko def nee na maa ngi rus a rus ba toll ni innama wax na dëgg ndax borom xam-xam la nee na kanam gi soppeeku bu mer Mouhamed ni ah comme kii meer loo naa ko xaaral ma génn de mu daal di génn gis nga bi mu génnee waa kër gi ñooy nettali ndax Mouhamed ni ko dafa toog ñaari fan waa kër gi ñëw ni ko waaw yow Mouhamed loo jotee ak uude bi mu ne leen lu xew ñu ni moom daal da nga faa jóge xottu daal xottu der bàyyiwu ko ca kër ga lam fa amoon lépp la bu génn na kër gi dem na yoon kon loo ko wax ba mer mu xam ni kon xay am na nee na ma jug Madina tànk xam ngeen Madina ni mu rëyee kër për kër kër për kër wóor waa ji nekke waa ji génn dëkk bi dina fex kenn xamatul fu mu dem fa lay xabaaram jeexee xissa bi ñi ko nettali ci borom xam-xam yi ibn al jawzi ci fat safwa al allama ibn ibn al kasir ci bidaaya wa nihaaya ibn al zahabi ci koo laaj du wax waa ji fu mu mujj doo xam moom daal nee na mes dundam gi jeexee ji fu ko yàlla xamee kooka yaakaar naa ni bu doon nuna defe naa danañ bëgg loolu ñu xam ne yow yaa ñaanoon ci dëkk bi fi mu ne ba ba ba taw bi am ba ba mbir yi ma ala kulli xaal ñoom daal soo doon tudd kon seeni mbir ci nëbbu seeni jaamu yàlla lu rëy a rëy la moo tax benn borom xam-xam bu ñuy wax Sufyaan ibn Uyayna nee na ida waafaqat sariratu alalaniya fa dalika al adl soo góorgóorloo ba li ngay nëbb boo ko peesee moog li ngay feeñal ñoo tolloo quoi mu ne fa dalika al adlu kenn mënatu laa wax dara kon maanu ga mu ne wa ida kanat sariratu afdalu min al alaniya fa dalika al fadlu boo fexe ba li ngay nëbb moo gën a baax li ngay wan nit ñi mu ne na sa xel dal tëddal nelaw kon li nga am lu baax la wa ida kanat al alaniya afdalu min al sarira fa dalika al jawru su fekkee li ngay wan nit ñi moo gën a baax li ngay nëbb mu ne xamal li yow miy tegewoo ci yoonu jàpp nattukaay baa ngoogu kenn ku nekk nag ci ñun boo jógee bu xool kenn yow xoolal sa bopp xoolal ba xam yow boo wéetee ni ngay def ak boo gisee nit ñi ni ngay def xoolal boo boo bu fekkee nu mu tuddati li ngay nëbb ak li ngay feeñal lan moo ci gën a baax lan moo ci gën a sell kon sunu borom mu ni yonent bi waxal qul inni umirtu man de dañ maa digal ni ma an a'budu allah naa jaamu yàlla muxlisan lahu din sellal ko de suñu borom ni ni man bii nag waxuma yóbbante dama leen di wax direct wama umiru digaluma leen illa li yaabudu llaha la dul jaamu yàlla muxlisina lahu diin nañ ko sellalal diini ci xunafaa ju xott jaar ci yoonu baay ibrahima wa yuqimu salaata taxawal julli dellul ca sellal ko te nay sell wa yutu zakata boo joxee zakat dellul nay sell wa dalika diinul qayima bii laa soxla xam nga lii dafa leer digaluma leen du dul ngeen sellal jaamu yàlla yi jaar ci yoonu ibrahima del julli bàyyil xel sellal gi del joxe asaka bàyyil xel sellal gi li ngay def bàyyil xel sellal wa zalik dinu xew jiraa soxla jeneen joo def ji du jooju soxla woo moo tax nag bi bi jàngale bu mokkee yonente bi lu wax qulillaha man nag yàlla nag abudullahi jaam muxlisan lahu diin moom dama koy sellalal yëf yi wal musibatu kullul musiba mooy jaamu yàlla yi moom nu mu mën a mel bu sellut moom boobu moom qadimta ma amilta min amal fa jaalahu rabbu habaan mansura beneen bi ci des mooy yonente bi alayhi salaam min gayri ci benn xadis rek gis ngeen innamal a'maalu binniyat lam jeexee mu ni képp foo xam ne sa gàddaay gi yàlla ak yonent bi moo tax nga di ko def su boobaa da nga ci am yiw suñu borom dana la fay waaye gàddaay gi su fekkee leneen a tax nga di ko def te mbokk yi xoolal yonent bi mu tànn sallallahu dëgg la xadis bi am na sababu wurut waaye lam tànn lu garaaw la de bàyyi sa kër bàyyi say mbokk bàyyi sa njaboot génn muy jaamu yàlla boo xamante ni tey mën nga yu bari waaye bii moom mën naa jafe ci yow mu tànn gu réy noonu ne su fekkee bi nga koy def yàlla moo tax akub yonenteem bi nga am yiw bu yàlla taxul akub yonenteem nag mu ni xoolal subhanallah mbokk yi al alquran ni mu amee balaaga noonu la waxu yoon sa salam amee balaaga xoolal au lieu que mu nekk fa naan ku gàddaay de nangam moo la tax a jóg boo dee yàlla fay la nangam nangam da di fa hijratu ila ma haajara ilayhi lam gàdda man daf mel da koy sobantal ba nga xam ni lii jëru sax ñu ne jël temps di ci wax ila ma haajara ah moom de lam gàdda lay am man du fa nekk sax di wax benn benn tiyaaba joo xamante ni am na ca comme ni ngay ñëwee ci alquran gis suñu borom di wax wax yu am solo wa man yaxruj min bayti muhajiran ila allahi wa rasulih thumma yudrikuhu l mawt alquran dana waxee lu mel noonu fekk sobantal la ci jublu dana waxee nu mel noonu fekk yëkkati mbir mi ba nga xam ne lu rëy la la ci jublu mooy man yaxruj min baytihi muhaajiran ilaa wa rasuulihi summa yudrikul mawt mu ne faqad waqaa ajruhu ala Allah ku génn ci sa kër di gàddaay nga dem ba ci yoonam dee dab la fa yow moom xamal la nga doon wut am nga ko xam nga la nga doon wut am nga ko mooy dencal nañ la loo xam ne faram-fàcce ga sax mën naa jël wax kon borom bi subhanahu wa taala li mu sàkku ci ñun mooy lépp lu ñuy def ak lu ñuy wax mu sell ngir suñu borom subhanahu wa taala kon tomb boobu mu ngi noonu bi ci def ak salaf wala iffa salafu saalih ak moytandiku bàkkaar ak fegu fegu ci def bàkkaar amaana doomu aadama li gën a mën a yàqal ko mooy bàkkaar ndax mën ngaa góorgóorlu ci sellal ba nopp waaye bàkkaar daal di ñëw bëgg laa yàqal bàkkaar nag boo ci jëloon benn muy yén saxalam mu ni li ma gën a tiit ci sama xeet ci sama gannaaw ci fitna mooy fitna jigéen
xaral ma génn muy fitna jigéen léegi jëleen boobu kon ndax yonent bi lu mu toll ni lii la gën a tiit ci ñun loola simple nga xool salafu saalih ñoom seen ak fegu fa mu yeggoon foofu dinaay wax Sufyaan as-Sawri dem na ba am juróom-ñett fukki at ak nangam benn bët bi fatt mu téye ba ca des boo ne ko loo gën a tiit sa dund gi mun a xanaa fitna jigéen màggatum juróom-ñett fukki at benn bëtam fatt nga xam ne jigéen ñi sax soxlaatuñ ko kooku lu muy tiitati loolu gis nga kon ñoom yeggoon nañ ci xam ni kat fitna mën na leen dikkee ci buntu boobu moo tax seen ak mooy tëdd ku rëy lool benn bis ci bis yi ñaari mag wala ñaari ñu bokk muy Souleymane Ibn Yassar ak Ata Ibn Yassar te li imam Ibn Jawzi mi ngi koy nettali ci sifatu safwa nee na dañoo ànd génn di aji nee na bi ñu yegsee ba Makka nee na ñu am aajo Souleymane Ibn Yassar moo nekkoon rakk Ata Ibn Abi Yassar moo nekkoon mag ji Souleymane Ibn Yassar nee na ñu am aajo daal di génn mën a gaay Ata Ibn Yassar des ci néeg bi di naafila di julli nee na benn jigéen daal di ñëw fekk ko fa muy julli ñoom nag dañoo baaxoon ndeysaan nee na bi mu yëgee ni jigéen ji egsi na mu jàpp ne xëy ndaw si kat dafa am aajo mu bëgg koo dimbali mu gaawal julli gi mu mu am julli julli gu yam rek bañ a guddal ngir gaaw laaj ko luy sa aajo ma fajal la ko ndek ndaw si musibaa ko tax a jóg mu sëlmal daal di ko waaw luy sa aajo ndaw si daal ni ko man de jigéen laa joo xam ni damaa toll ci mat jigéen yëg sama bopp te fi ne mënatumaa muñ sama bopp damaa bëgg góor gu njaaloog ma defe naa bu doon góor góoru xaraasi lañ koy wax du noonu la bu dee jigéen xamatuma olof ba bu doon góor góoru xaraasi la loolu feebar la nit day toll xam dootu mën a téye boppam bi mu ko waxee loola ata ibn yasar ni ko audu billahi min alshaytan rajim boobu ma ngay fàttali ko aaja qul inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin azim saa bu buntu mooy yàlla tijjee ko sa kanam rek solal lu ne ci aaya jooju qul waxal ni inni man kat axaafu maa ngi tiit in asaytu rabbi su ma mooyee yàlla tey adaba yawmin azim du may métti ëllëg aaya jooju boo solee lu net yooyu jàpp naa di nga mën a mucc bu la suñu borom dimbali nee na ndaw si di muraawa daag moom ci biir néeg bi muy muslu ci yàlla di muslu di muslu ba mu yàgg rek muy yëkkat commencé di jooy di jooy jooy yoo xam ne xam nga magum jëmm moo xam ne du du ma woo ko xasoo ko waxoo ko lu bon mu sëgg di jooy bay sër xët am na lu xew nee na foofu rek Souleymane nee na ñu daal di yegg si bi nu yeggsee fekk ko muy jooy ndaw si moom it yëg ni mag mi di jooy amat moom it muy jooy moom ndaw si mu commencé di jooy nag léegi xam naa am na lu ko dugg comme warmaalante ñoom ci seen biir comme dafa bari woon Souleymane nee na rus naa kaa laaj looy jooy mu ni ma ñëw rek toog ma it moom it mi ngi toog jooy yaa ngi métti sërxa di mënatu ko moom it muy jooy ba mu yàgg ndaw si daal di jukk rek rocceeku dem yoon moom it ba léegi rus na koo laaj lu xew ndax magante geeg warmaalante gi nee na ñu daal di jóge benn bis ñu dem Égypte tukki nee na bi ñu tukkee Ata ibn Yasaar ba léegi daal di tëdd ba guddi daal di gént benn genre podium rek yonent yàlla Yuusuf taxaw ci nit ñi ñëw di yërlu i kii mooy Yuusuf ku nekk naan xoolal rafetaay bi xoolal loxo yi ku nekk di kii wax nee na man ma bokk ci ñey seetaan mu ñëw daal ne ko yow yaay Yuusuf mu ne waaw man maa Yuusuf Yuusufum Yaaquba mu ne waaw waaw Yusuf muñ tëjoon kaso mu ni waaw ma daje woon ak jigéen ñi allahu akbar daal di commencé yéemu Yusuf daal di ko ah da nga yéemu ci man lu tax yéemu woo ka daje woon ak ndaw sa ca àll ba ca ca ca dëkk ba nee na mu daal di yeewu bi mu yeewoo nag xam naa gént gi marqué ko mu tàmbali di jooy rakk ji fekkaat ko foofu ni ko waaw looy jooy mu ne ko nag li may jooy tay moom dinaa la ko wax kee laaj na ko waaye mu ne ko dinaa la ko wax waaye nag bi sharti bul ko netti lu dul damaa faatu allahu akbar xoolal sellal gi ma wax del si waat mu ne ko lu xew mu ne ko damaa gént gis Yuusuf nangam nangam wax ci sa ba eggal mu ne ko tée ngaa yéemu ca ka daja woon ndaw sa mu ne ko ka daja woon ndaw sa kan la mu ne ko man la mu nettali ko xissa bi nam demee woon mu ne ko nii la demee woon ila axiri mu ne ko bul ko netti lu dul damaa faatu ñoom it nag dañ doon sàmmante sart yooyu ba bi bi Ataa ibn Yasaar faatoo Souleymane ibn Yasaar kenn ci ay soxnaam la ko nettali soxna saa ko siiwal après affaire bi commencé wasaaroo moo tax jaamu yàlla yi jot a siiw léeg-léeg mbokk yi waxtaan yu mel nii xam naa laaj bi sax la am na kenn da ko laaj mooy comme seen jëf yi nu muy def bay siiw bunt bi bokk na ci li tax muy siiw mooy nit ki mën naa def am kum ko wax muy ndongo bi ko gën a jege wala soxnaam wala nangam waaye charte mooy bu ma faatoo na nga ko def. na nga ko na nga ko na nga ko nga doog koy nekk li wa illaa boobu muy loo xamante ni xëy na borom bee ko nattu mu feeñ te bëggul woon mu feeñ kon fekk gi yeggoon na foofu waaye moytandiku tamit ci bunt bi yeggoon na foofu Muhammad ibn nu mu tuddati Rubay ibn Xusayn qissaan bi kadalika daanaka noonu la meloon am na beneen borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Ubayd ibn Umayr ci kaaba gi la doon toog di jàngale benn jigéen dafa toog ba mu yàgg ndaw su rafet di ñaqaab kanamam ba mu yàgg mu ni jëkkër ji mu taxaw ci seetu bi seetu ba mu yàgg mu ni jëkkër ji yow est ce que foog nga ne addina bi yàlla bi am na góor gu mën a taxaw sama kanam la dul dinaa ko fitnaa mu ne ko waaw am na góor goo xam boo taxawoon ci kanam doo ko mën a fitnaa xam naa ndaw sax moom da di sàggan jigéen jëkkër ji sàggan ndax ku fiir sax du def loolu rafetaayam jaay ko mu ne ko yaakaar nga ne kaw suufu yàlla ji am na góor guy taxaw sama kanam du dinaa ko fitnaa mu ne ko waaw mu ne ko kan la mu ne ko Ubayd ibn Umayr mu ne ko anam mu ne ko ma nga ca kaaba ngay jàngale mu ne ko bismillah ndaw si daal di génn mel ni kuy laaj la ab laaj ñi ñuy jàng laaj seeni laaj ba yeggal foofu borom xam-xam yi jàng la war nañ ko bàyyi xel léeg-léeg seytaan mën naa yomal kenn de léegi kooku jàng si wut ndawal iblis la bi mu ñëwee mu ne ko man ko damaa am benn laaj xam naa danga ko rus a wax ci mbooloo mbaal ñu weet tuuti mu daal di wëlbati koog moom ndaw si daal ni nii niqaab bi yëkkati mu ngi mel ni ka filqatil qamar comme daggitu weer ndax rafet bi mu waxee bi mu kiyee Ubay ibn Umayr daal di wëlbati ko xool fële te boo ne ak borom awra wutale ndax kanamu jigéen awra la wala adu awra ñun ma masaloom li jàpp mooy nekkul awra ki ko def nag nëbb ko mooy la gën la shakka waaye ku ko defut kenn du ko wax nga am nga bàkkaar kon jàkkaarloo gi mu jàkkaarloo di ko xool bu dee kanam la amaana mën na si dafa am bàkkaar waaye daw fit na tax na mu wëlbati mu ne ko eey jaamu yàlla ragalal yàlla te nga bàyyi li ngay def te nga wax li dafa indi nga jóg dem sa yoon ndax yaa ngi teewlu bu fekkoonte ne dee dalaa dikkal est-ce que yëfi càggante yi di nga bëgg dee bett la ci bu la malaaka yi tëraloon ta toogaloon ci biir bàmmeel di la laaj ndax da nga bëgg sa laaj ñu limaana say bàkkaar fii ndax bu ñuy pees say jëf àllaaxira di nga bëgg bii duggaale ca jëf-jëf rek ndaw si daal di jóg tiit bi mu jógee ñibbisi rek affaire boobu ndekete kenn ku nekk ak lay lay bojj sa xol yàllaa ko xam bi mu yegsee ndeke wax ji jamate na ko mu commencé rek futteeku na nekk ab jaamukatu yàlla jëkkër ji daan wax ni man de su ma yëgoon du dem ci Ubayd ibn Umayr ndax kii guddi gu ma mosaana doon ab seet lay doon fi ne tey guddi gu jot labbe laay am ndax mën a jaamu yàlla kon mbir mi yeggoon na foofu ci moytandiku ak fegu buntu boobu defe naa buñ ko waxee yeneen i buntu yi ci des yëpp ci wàllu fegu xam nga ni fii gën a garaaw ba yent bi ti ko tiit ku ci rëcc moom yaakaar na yee ca des da nga ci mën a rëcc ba ci topp mooy salafu saaleh ak li ñu tuddee qiyaamul layl kooku moom duma ci wax lu bari ndax li tax mooy jataay yu mel nii jataay biñ ci amoon sax defe naa waxtaan wan ma ci santoon wii la te it ci fàttali yu bari ñu ngi ciy wax waaye li mënta ñàkk ma wax ko ci rek mooy ñu xam ni qiyaamul layli mbokk yi mooy jaamu yàlla goo xam ni tasilu alqalba billahi mubasharatan wa tajcaluka qadiran ala tagallubi ala mugrayat alxayaat julli guddi moom yëgal ni mooy jaamu yàlla goo xam ni moo la mën a jokkaleek yàlla dakk li ngeen tuddee sans fil nga xam ne amul sax ay ma dem te ñëw mbaa amal xaaral fii déedéet moom dafa gaaw ci jokkale la ak sa borom beneen bi ci des mooy loo dóor mu daanu loo song man ko formation bi ci julli guddi la defe naa gis ngeen aaya ja sunu borom ni ko yaa ayyuhal muzammil mu ne ah qumil layla illa qalila jugal guddi nga julli nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayk war a tel teelal ko programme ba mu yegg pourquoi parce que inna sanulqi alayka qawlan thaqila parce que message bi ñu la jox dafa diis kon wutal téeñ mu ne wutal téeñ bi ñu ko koy wax ni nga ko jaare ci julli guddi moo tax borom xam-xam yi di wax ne képp koo xam ni songonte nga julli guddi ba man ko loo songati yaa koy daan ci jaamu yàlla yi waaye boo songee julli guddi mu daan la tàmbalil tiit mënatoo song loo xam ne yaa koy daan parce que kat wax dëgg yàlla mbokk yi guddeeg surtout jamono ji ñu toll sedd nit ki jug foofu nag xëy na nit ñi comme ni ñu jàppee julli guddi da ngay julli guddi gi yëpp ba mu jeex kaanu xëy na mi na lay li ma yahjaun guddi gi tuuti lañ doon nelaw nga jàpp ne day fanaan affaire déedéet sunu borom Abdullah ibn Abbas bi muy firi aayam de ci surtu Zariyat dafa wax ni ku man sax ñaari rakk nga jóg ko julli ko te fekk loola nga mën nga yam ca buñ ñi pointé dañ lay pointé ku fanaanee julli gis nga de kon ñoom kat bokkoon na ci seeni melokaan mooy ay jullikati guddi lañ woon waaye nekk ay woorkati bëccëg gis ngeen buuru romba ba mu bëggee xeex ak jullit ñi yabal benn waaye ba mu dellu see dañu ko ñii moom bu yebal nga fomm sa soldat si mu ne ko lu tax mu ne ko jullikati guddi guddi kenn du dégg comme ay yamb yuy naafila di jàng alquran te bëccëg bi boo leen fekkee ca marché ba ña nga yendu ay yenu ay daanu mel ni ñu fanaan ci kawub lal ñii boo leen song ñu lay rey te wax na ko dëgg naka la nit ki mën a fanaanee loolu xëy ah foofu nag fi nga yëgee ndekete benn mbokk li mu doon wax mu ni entraînement daal jullikat guddi jërul mu di ko def aka wax dëgg ndeke jullikat julli guddi day may énergie ndax ki mënaan fanaanee julli xëy yendoo jihaat wala fanaanee julli xëy yendu ca marché ba la muy wane mooy am na lu ko may énergie moom kon julli guddi day maye énergie bu ko defee kon salafa saalih moom misaal yi ñu ci mën a tudd bari na lool bokk na ca ay mbir yu bare bari yoo xamante ni man nañ ko ne ci li comme ni ngeen ko xamee ci bind yi la weesu mën nañ ko tënk noonu ndax gàttal bañ waxtu dab na ba ci topp salafu saalih ak tiit gundoon tiit ak saa bu ñu dajee buur bu jéng buur boo xam ne xëy na nan bëgg mu mel ni meluñu bi defe naa masala ni moom yaakaar naa soxla naan ko ñun fi mu ne saa boo tombeeg jamono joo xam ne xëy na buur ba wala ka jiite président nga koy tuddee buur nga koy tuddee gouverneur borom dëkk ba ila axiri su fekkee dafa dëng ñoom nu mu doon mel saa buñ dajeeg moom mbokk yi foofu dafa am benn aaya bu nekk ci suuratu an'am ci aaya téeméereel ak ñaar fukk ak juróom-ñeent suñu borom mu ni wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun aaya jooju mbokk yi bëgg naa ñu nafaraat ko bu baax sunu borom mu ni wa kadalika nii ngeen ko gisee ca kaw jëf ji daay daay ba nit ñi naan nabi jógee na na nangam ak baaxul ci ñun ak nit ñi sonn noonu nangam sunu borom mu ni wa kadalika nii mu mel nu walli laay indi indil baada zalimina lenn ci tooñkat yi baadan ñu mel ni ñoom nekk ci seen bopp di leen karwaase lu ko lu xew sunu borom ni bi ma kaanu yàgg si boon yéen a ko def ma defal leen lee kon ndekete nit ñi sa nanu mel rek noonu la yàlla son talak tàggat ka leen di jiite mel noonu mbir maa boobu moo tax léeg-léeg gis nga baaraam yi joxoñ yi ñuy joxe ñaate damaa jàpp ne léeg-léeg ñu ngi koy joxoñ fañ ko war a joxoñ waaye am na feneen fuñ ko war a joxoñ joxoñuñ ko fa ndax nit ñi niñ mel subhanallah bu nit ñi delluwaatoon gannaaw léegi tuubal yàlla jaaraat ci alhaji mustaqim ba ma bayna ashiyatan aw duhaa aw ajala min dalik suñu borom daal di fiy jëlee caacaay indi mbaax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gis nga kon ñoom dañoo gëmoon ni maanaam mbir mi du lu ñuy jiiñ diw waaye sa bopp ngay jiiñ Muhammad ibn Yusuf borom xam-xam bu mag la dafa toog ba mu yàgg benn frère am bu dëkkoon ci beneen dëkk bind ko lettre ni ko ñun kat suñu dëkk bi crise daf fee am ah nguur gaa ngi pasar pasaree xaalis bi ñu ngi yàqaate dañuy rey nit ñi boo sëqatee sax ñu dóor la jàmbat jàmbat te leetar ba wax ay wax yu bare bare bari waaye déglul la mu ko tontu mu ne ko qad balagana kitaabuk wala yaxfa an ilmika ya axi annahu laysa liman amila bilmaasiya an yunkira wuqua alcuqubat wala ara ma antum fihi illa min sukmi dunubikum wasalaamu aleykum wa rahmatullah mu ne sama mbokk mi sa leetar bi yegg si na waaye yow yaa gën a xam ni ki def bàkkaar wërta bañ yarab mbugal dal ci kawam li nga jàmbat lépp nag dara waral lu ko lu dul seen bàkkaar yu bari yi saab leetar foofu lay yem kon nit ki saab yu mbir amee rek na ko jiiñ boppam waaye bu mu ko jiiñ ka nga xamante ni mooy buur wala yu demee noonu kooku maanaam lañ koy laaj yow sa wàll lañ lay laaj tom ba ca topp ngir gaawal bañ waxtu dab ñu asalaf والصبر على أذى أزواجهم أو زوجاتهم سلف الصالح ak muñ giñ doon muñ lor yi bàyyeekoo ci seeni soxna jëm ci ñoom mbokk yi kat xam ngeen ni surtout ci jamono ji ñuy dund bokk na ci problème yi mu gën a rëyle mooy problème biir kër diw ak jabar ja diw ak jëkkër ja diw ak wujj wa wa kadalik salafu saalih ñoom dañoo gëmoon ni doomu aadama bu tàggatulee yàlla tàggatu ga war mboolem kum yirib da koy tàggatul tàggatu ga war wa hada huwa sualu maa aljawab saa boo tàggatulee yàlla nangul ko nangu gu wér sunu borom moo lay tàggatal li nga yilib mu nangul la nangu gu wér muy rokki mi rokki kiif kiif rek saa boo tàggatulul sa borom nanguloo ko nam war sunu borom day bàyyi kala war a tàggatul mu lànk bañ laa tàggatul moo tax kenn ci ñoom nee na su ma waxee ak sama soxna mu ne mu ne duma ko wax dara damay dugg sama biir nekk ma ne man gan ñàkk fayda laa def sama diggante ak sama borom ba sama soxna dama ci patu mbokk yi hada huwa sual loolu mooy wax ci gis nga Balqis Suleymaan ba mu ne maaliya laa aral hutbu teen gisul hutbu guru damay fontoo lu tax gisuma ko déedéet dane man lu ma dal tey ba gisuma hut hut kon kilifa bu mbir amee bala ngay accuser kenn tuumaalal sa bopp na maa lii laa aral hutbu man lu ma dal tey ba gisuma hut hut lu xew mbar damaa def dara xëy na kon yooyu da lay wax ne ñoom dañ doon accuser seen bopp bala ñuy jox kenn mu ne su ma waree sama fas yi mu wàññeentuma damay wàcc ni man lu ma def démb lan laa def démb ba fas wi dama pourquoi fas wi dama wangeen ndax fas wi waruma ko war a dafa war a tàggatu kon damaa tàggatulul sama borom moo tax suñu borom digal jaamam bi mu lànk bañ maa tàggatul loolu waral na nag mbokk yi ñoom dañ doon muñ lor yi doon bàyyi ko ci seen i soxna jaamu yàlla gu mag la tey mbokk yi jigéen ñii faw ñu di leen muñal ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa lahim xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te maa gën ci sama waa kër faw ñu di leen yërëm faw ñu di leen muñal ah ak jaamu yàlla matut ndax leneen du day gis baax leneen mu am ngant julli am xelam matut ndax benn seede góor doy na waaye jigéen ñaari seede ku sa jaamu yàlla matut sam xel noonu sa doole néew suñu borom nooyal say cër nekk dëgër yow góor gi say cër xam nga ni kii dañ ko war a dimbali kon ah xuural sa baat neexal ab baatam dëgëral saw yaram nooyal aw yaram maylaw fit xañ ko ko xam nga ni jigéen bu amoonul fit musiba am ci biir kër moo tax jigéen ju la gën a dëgër fit gën laa naqarib say jigéen warta amu fit parce que nooy ga góor moo ko war a ëppale nooy gi jigéen a war a ëppale góor nooy moo tax dañ doon muñ nag seeni lor jàngee ko ci seeni yonente sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi dañuy nettali ay qisas yu bari yu lay wan ni ñoom kat dëndal muñ loolu defe naa su fekkee juuma ci nettali bi ibn abi zayd la saaxibu risaala way laa budul moom di keneen ci ñoom soxnaam dafa meloon noo xam ni subhaana rabbina al aala ndongo yi sax dañ daan sox dinaa ko kii fasa ko waay kii ki dafa bon waay xam nga yu mel noonu day faral dem ndongo day sox man maa ngi fàttaliku loolu ndongo day sox léeg-léeg nga gis soxna si def lu bon sëriñ bi lii man man fekkee naa ko man dund naa ko man boo ba di sa xol day sot sax da nga naan kii dañ ko war a posone sax mu dee jóge fi loolu day faral di am waaye buñ ko laajee xam nga lu mu daan wax sunu yonent daf ñoo digal ñu muñal sunuy soxna amaan na kii mooy sama nattu mbaa du ma ko fase sunu borom indil ma nattu bu ko gën a rëy ñu bàyyi leen ma muñal ko madina ci jàkkay biir jàkkay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn borom xam-xam nee na dafa am benn borom xam-xam bu mag bu fa am xalqa di jàngale waaye soxna si mel ni te xam nga ndeysaan borom xam-xam bu dem ba am maqaamay jàngale biir jàkka yonent bi kooka de ndawe wut de waaye soxnaam sa biir kër ga daal kenn mënu la ko wax benn bis mu ni soxna si diggante timis ak gee damay jàngale ci jàkka ji na nga fa ñëw dama laa soxla xam naa ba am na lu mu ko bëgg a jàngal lu mu ko bëgg a wan ndax damaa xam ni ay junni junni nit ñëpp toog ci suuf moom mu toog ca kaw di jàngale la muy wane mooy kon nit ñi fonk nañ ko amaan na xëy na soxna si bu gisee fonkeel bu ko dara tax si ñibbee mu fonk borom këram ndeke gis nga nit bu jubadee rek jubadi na bu dëngee rek dëng na soxna si ñëw daal di koy xool xool ba darsa bi yeggal mu daal di jël kàddu ni ko xool naa jàkk ji yëpp waaye gis naa ni yaa fi gën a yaree ko mu ne ko lu tax mu ni jàkk ji ñëpp ngi toog ormal la di déglu yow ngay wax di waccax waccax yi loxo ni xam nga nit bu yox faw mi sa def nii léeg-léeg mu ni gis naa la ngay wax di waccax yi say loxo yow ku ñàkk yàlla daal di gën dem yoon mbokk yi xoolal gii lor fi mu toll te taxul mu wàcc ak yeneen ba tey jii nag loolu mi ngi am yii ñuy dund nit ñii dund dañuy bëgg ñu di leen nëbbal seen i mbir dees na leen ko nëbbal comme li ma doon wax sànq waaye xam nañ ay nit yoo xam du ay nettali xam la ñoo xam ne la ñuy muñ jàpp naa ne man ak samay morom mënuñu ko muñ léeg-léeg nga am koo xam ne dafa tàng mel ni sawara léeg-léeg nga gis ku naqari dereta naqari deret ba nga jàpp ni moom ba ñuy séddale naqari deret moo ci ëppale léeg-léeg nga gis koo xam ne bu la tontoo rek boo xiifoon di ba suur yooyu yëpp nga di ko muñ ngir ëllëg waaye jigéen jiit mu bàyyi wàll ci xel nag yooyu nga yëkkati di ko jóor sa borom kër mu di ko muñ nag borom kër gaa ngi koy muñ waaye day këpp si waat ci njaboot gi loolu moom defe naa maaruf lu nu xam la beneen bi ci des mooy euh, waxtu waa ngi bëgg a dem euh, salafu saaleh ak tiit gundaawul tiit ci ku leen di menacé seen ngëm yàlla yeggoon na ci foo xam ni ñoom menaces yi jóge ci nit ñi ñoom comme exemple ku la tëkku nii ngay tiit déedéet nit ki warul tiit ku dul yàlla subhanahu wa taala maanaam seen fit ak seen ngëm yàlla yeggoon na ci nit ki loo ragal yàlla kese yàlla kese nit war naa toll ci fit foofu am na ndongo ma masa jógee bi sax léegi xam naa nag xam naa fa mu jaara métti rek moo tax benn bis dama ko wan ni ko yow est ce que am nga looy ragal ci kaw suuf mu ne ma déedéet xanaa yàlla rek ma ne ko amut loo ragal dara dara mu génneel ma ni ragal lu ma dara ma ne ko 100 mètres nag mu ni ma moo luy 100 mètres man daara jama nekkoon tëj nañ ma fa at gisuma jant bi nga naan ma ay 100 mètres mu ni ma man daal lenn laa ragal muy yàlla ndax damay bañ mu mbugal ma bi ma ko waxee nag xam naa ni ak juba dégg ca moom waaye wax ja marqué na ma gëm naa ni li mu wax dëgg la yàlla rek la ragal ndax xëy na bu dee luñ koy méttital jaaro ci ay métti maanaam loolu li ma ci soxlaa métti rek mooy nga xam ni kon ndekki nit ki war naa toll foo xam yàlla rek la war a tiit jamono yi Abdul Malik ibni Marwan xam nga buur yi dañ daan daj buur yi jullit dañ daan daj buur yi yéefar yi te nappante dana am seen diggante nappante comme affaire yeneen yeneen sax dana am ci seen diggante yu dul ay nappante buur Rom daal di bind benn lettre Abdul Malik ibni Marwan ni ko gis nga soo moytuwut fan yii dinaa la yónnee téeméeri junniy soldaar yuy jaar ci suuf si téeméeri junniy soldaar yuy jaar ci géej gi bu ñu yegsee danañ la taxañ yët ma la addiya wasala te xam nga ñoom bu ñu waxee yu mel noonu amaana bu dul dimbali suñu borom mën nañ ko parce que doole lañ amoon Abdul Malik bi mu ko yéeree mu ne ah kon de coow am na waaye comme ñoom dañ doon am ay conseil mu laaj conseil luy seen xalaat kenn ci conseil yi ni ko Muhammad ibn al-Hanafiya di doomu Ali ibn Abi Talib ngëm yàlla da fitwaat njàmbaate ga nanu tontu Abdul Malik comme ku muus la mu yónnee ci Hajjaj ibn ibn Yusuf comme Hajjaj moom it ku doyal waar la comme ni ngeen ko déggee mu ne ko bindal ma lettre menace yónnee ko Muhammad ibn al-Hanafi nga lu mu la tontu rek nga indil ma tontu mu bind benn lettre moom Hajjaj yónnee ko Muhammad ibn al-Hanafi di ko menacé naa ko yow xam nga Hajjaj nit ñëpp dañ ko ragaloon ndax ni mu meloon te ku menacé da ngaa war a tiit ni mu ko bindee lettre menace Muhammad ibn al-Hanafi jot ci lettre bi. bi mu ci jotee mu daal di koy liir bi mu ko liiree ba yeggal mu daal di jël xalimaam bind mu ni ko suñu borom yàlla de gëm naa ne am na ñetti téeméeri yërmande ak juróom benn fukk ak lu topp te gëm naa ne su dee sama ngëm dëggu naa ci donte benn yërmande sax dana maw ci yéeree ba doom alaal yow bi tontu bi yegsee walid ibn abdi abdul malik ibn al-Warran daal di jël tontu bi ni yónnee leen ma ko buur ba buur yu mu liiree tontu bi dañuy ah saa waa ji tontuwul lii Abdul Malik buur la may buur xam naa ko lii tontu bi dañ ko ko waxal waaye tontu ko looloo tax mu fomm maanaam loolu li nga ciy jàngee mooy kañ bind di ko menacé ko ko yëgul sax lu koy giir ndax gëm na ni moom bu nekkul ci dëgg warta tiit bu nekkee bu ne bu nekkee ci dëgg warta tiit. li ma dese bëri ba ci topp salafu saalix wa birrul waalidayn salafu saalix ak baaxi seen ñaari way jóg amaana maa ngi jàpp ni day nekk gi nga nekk ci sunna di ca góorgóorlu gis nga bu taxee nga jàpp ne yaa ëpp sa wayjur valeur ndax moom nekkul ci sunna mbaa nangam comme ñenn ci sunu kalaas gu gàtt àlluwa gi niñ koy defee ba tax nga bëgg a def sa wayjur morom xal ko rek wayjur moom nu mu mën ci mel boo ko defee morom xal ko rek ndax yàlla la mu waxoon wa wa qada rabbuka ah ah xal ko waaw nee da ngay xel ko mooy da nga yàqu la rek la ko waral mooy way jur même bu nekkoon bokkaale katu yàlla yemu ca waaye mu di la ca woo sax sunu borom ne wa saahibuhum fi dunya ma'rufan bul ko ca fekk si waaye nag rafetal waa mbokk yi way jur bi nga xam ne day bokkaale ba di la ca woo sunu borom mu ne bul ko ca fekk si waaye nag rafetalal waa fa kay fa kay nga xam ne moom li ngay dund ci diine lay dund moom xëy na daa muy leer ci yow leerul ci moom doo def na Abu Hurayra defoon di def ay effort ak jooyee ka ñaan ba yaayam gindee wala baayam gindee yu mel noonu kon mbokk yi way jur ku foor la jaamu yàlla gu rëy nga ci mën a am torox na xalku na torox na xalku na torox na xalku na ñu ne yent bi ku torox xalku foofu ba mu limee ñett ya dane ku fekkee dunduk ay way juram mu sàggan ban faatu te bii bi ko yóbbu àjjana jëleewu ko ci ñoom allahu akbar ci kaw min bar la ko waxee sallallahu alayhi wa sallam ah borom xam-xam yu yàgg yàgg Muhammad ibn al Munkadir ak rakkam Omar su ma juumut ci nettali bi nee na nee nañ seen yaay dafa feebar Omar nee na ma daal di jóg ci guddi gi man di bësal sama yaay tànk bi sama frère bi moom di fanaanee naafila nee na bi ñu yeewoo ci fajar gi ma xam ni moom da doon fanaan naa ko mu ne bësal sama yaay mu ne man de bu guddi dellu si waatul ma fanaan ca la ma fanaanoon ndax gëm naa ne maa la ëpp tiyaaba fa yàlla maanaam ki doon bés tànk yaayam nee na moom bu bu ëllëgee ba tànk yaay jiy metti mu fanaanee ko ba sax ba léegi gëm na ne tiyaaba ji mu am moo ëpp tiyaaba yi ki fanaanee naafi la ah kon wa qadaa rabbuka allaa taabudu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan loo man fa rafetal yem suñu borom mu ne yem faj say waajur imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma rawatina bu kenn jëmee mag aw kilahuma wala kenn ci ñoom ñaar wala ñoom ñaar fala taqul lahuma uffin kàddu gi mu gàtt ba toll ni uff wala tanharhuma bu leen gëdd wa qul lahuma qawlan kariman wax jëna nooy na neex waxfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma ndombay tànk ñi nga takk yépp sa baay ak sa yaay safu leen ndax ci seen kanam nga juddoo waxfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma ndombay tànk yi nga takkal président nga ministre nga député nga loo mën a doon borom xam-xam nga loo mën a doon sa ndombay tànk yi nit ñi lay sax waaye wërta sax say waytu nit yeggoon ba naan man de bu dee terrasse bi sama bàyyi ci salle bi du ma yéeg ca kaw ndax bëgguma tiim ab néeg boo xam ne sama wayjuram ca suuf kee naan man de bu ma waxee sama wayjur ma gëdd ko damay sarxe ab jaar borom xam-xam ma toog di jàngale yaayam ni ko may nga ginaar yi ñu lekk mu ni dem jugal fi nga nekk waxuma la ko woon dem mu bàyyi fa xalqa ba dem may ginaar ya dellu si wat yooyu yépp la muy wane kon ñoom xamoon nañ ak wayjur fu mu toll te it mbokk yi nag danaa koy faral di wax ni fakkul wisaaq fi birri lwalidain wa fakkul wisaaq fi uquqi lwalidain li la tënk ba fi ne mënoo bouger mètre ngay dem li la yàqal mooy da ngaa dëng sa ñaari wayjur yàlla yàq yàq sa yëfe affaire sa morom yi liñ la rawee daa fekk diw mi daa toppatoo ay wayjuram loolu moom suñu misaali àddina yi rek defe naa gis nañ ko ci nu doy loolu ndax gàttal wax asalafu tawqirul ulama ormal borom xam-xam yi lii am tay tay la am waaye ci jamono Amar ibn al-Khattab da nga xam ne fuddum ndigg ca la gënoon a bari bari waa na yoo xam ne tey nit a nga koy wax wala moo di ko def jëmale ko ci borom xam-xam boo ko defoon rek taxay dikkal la moo tax benn waay nee na Ibn Mas'ud waaye may wax muy naan day ñëw di indi yéreem yu gudd yi ba pare bëgg noo jiite ah fekk Ibn Mas'ud dafa amoon benn góom ci tànk bi moo tax cëkkalul ndax góom bi kat da doon xel li mu bañ nit ñi gis ko seen xel di teey wala mu muur ko waa ji génn na waaye wax mu naan dañuy jiite Omar ibn Xattaab xëcc ko ba mu génn ci jàkk ji fudd ko du rabi ba ndig ndig li tàng mu ne ko suñuy borom yi xam-xam kenn du waxee ak ñoom nii daan dem te ma naan boobu yére yaa ngi xaw a bugg tuuti parce que góom bi la doon nëbb waaye façon waxin bi mu ko wax mu ne ko suñuy borom xam-xam kenn du waxee ak moom nii ñàkk yaa daay dem fudd ndiggam ci buntu jàkk ji te xam nga Omar la yóbbu leen ma ko ca kasama mbaa yóbbu leen ma ko ca danay fudd ci kanamu nit ñi moo tax saxaaba yi mu fudd seen i ndigg bari na lool sax ci bunt bi moo tax ñoom orma ci joxoon seen i boroomi xam-xam moo tax barke ba yegg fi gis ngeen xisa ba doon nettali ci durus yu bare bare waa ji dikkoon di jàng fekk borom xam-xam bi mu ñëw fëgg ko bi mu ko fëggee mu génn woyow heure bi nga may fëgg daal di koy puus bunt bi mu gaañ ko ci jëf mu daal di tëdd ci bunt bi fajar gi jot imaam yeewu gis waaye xanaa du yow laa dóoroon buntu bi dem lu la teree dem ñàkk ful la mu ne ko li nga sox yore loolu laa soxla saa bu ma ko jotee bu soobee dinaa dem xoolul muñ googu mu àndal ak orma ji moo tax it lan doon am di ko am wa axiru ma azkur mooy salaf wal infaqu fi sabilillah joxe seen alal ci yoonu suñu borom joxe alal nag mbokk yi alal dafa taq ci xol lool taq na ci xol taq boo xam ni suñu borom ne ay aaya wa anfiqu mimma razaqnaakum bañ na ko ba sax waxul joxeel li nga am joxeel ci li nga am kii am na yërmande de wax dëgg yàlla ah jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum joxeel alal xol bakkan moo gën a foor alal waaye alal la jiital foofu kon alal ji faw nit ki di ko joxe fi sabilillah ba pare di ko nëbb nag ca sellal ga Zeynal Abidin Ali ibn al-Husayn danaan bàyyi ba guddi jot mu dem lijjanti ay kees ay diwlin ay nangam ila axirihi dikk day fëgg sa bunt ba nga wuyu rek mu tekk sa bunt nekk daw doo xam kum doon bisab dëjëm ci la nit ñi doo nga xam ne ndekete am na kër yu bari moo leen doon jox dépense te ñoom waa kër gi sax xamuñ ko gis nga de Abu Hurayra benn waaye mas naa ñëw di ko def test benn gouverneur xam naa léeg-léeg dañ lay def ay piège yónnee ko benn manetu xaalis ñu ko dama la koo may xam naa di ko def piège comme lii xew rek borom xam-xam bi xam nga ni boo fekkee waa ji ñàkkub dépense nga daal di koy jox cinq cinq millions wala six millions mu daal di koy lekk nga jëm suba suba ni ko jox ma ko fekk amu ko ko xam nga ni loo ko wax loo mu wax ko amu ko daal di koy génn saraxe ji ko ca suba te gouverneur bi daal di yónnee ci moom ni ko eh démb ki doon séddale dafa juum de waru la ko war a jox mu ne ko am naa fi salaire bu weer dee fekk gouverneur la moom it mu ne ko bu weer dee nañ ma ko yónni ci sama salaire ndeke saraxe na ko depuis démb ca ngoon keneen ki moom biñ ko ko joxee moom dafa xam ne dañ koy peese mu teg ko foofa ñu bàyyi ko fa juróom benn weer ci biir ak xandi la ko dugal xandi bi mu ko dugal ci biir xandi dem na ba lënd yi sax lënd ko ñu xëy xëy buur daal di yegg si ni ko ah yow yëbbante ba ñu yëbbante woon de juróom benn weer kii dafa juumoon mu ni jaam bu jigéen bi ubbil ko ko ma nga fay ci biir xandi bi nga jox ko ko ñu xam ne pièce bi kon dalut kon mbokk yi buntu alal day neex na ci moom ko lool waaye nag yëg leen ni ki gën a muus mooy koo xam ni alal moo ko gënal alali jaambur li nga yor nii tey alali jaambur la waaye la lay xaar ëllëg mooy sa alal bala ngay xam ne li nga yor alali jaambur la deel léegi ci ngoon bu ko soobee yàlla kee jël sumunam kee jël kee jël nangam ila axiri waaye li nga am day wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah huwa xayran wa aadama ajran wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain waxtu dab nañu am na ay tomb yu des waaye ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala liñ jot a dégg mu nekk yóbbal bu ñuy mën a jëriñ ca ba keroog ñu daje suñu borom sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi kon mbokk yi dem julli ji.
Barakallah.